asalaamualeykum mbokk senegaal yi ñuy déglu asalaamualeykum mbokku taskatu xibaar yi ñu leen di gërëm ci wuy si bi ngeen ñu wuy si fii àddina bi tollu ci ay jafe-jafe dafa am lu senegaal tal dafa am lu président de la république ak ñi and ak mom di liggéey tal ak lu ñu talu dafa am lu réew mi àttan ak lu mu àttan li xew ci àddina bi bi ñu génnee ci ñaari ati mbas te jeexagul guerre Ukraine fu nekk di map njëg yi di yokk fu nekk ci àddina bi ay réew yoo xam ni njëg yi na mu fay yokke daanaka day duble li ñu war a tal mooy fexe ba jafe-jafe yooyu bañ a nërmeel suñu askan bañ a nërmeel suñu réew jafe-jafe yi ñu ngi fi jóge ci àddina bi ci loo xam ni suñu yoon nekku ci wante suñu warugar la ñu takku fexe ba dékku ko ba ñi nga xam ni ñoo gën a néew doole jafe-jafe yooyu bañ leen a nërmeel ci cadre boobu ci ngeen gis président de la république yokk saleer yi ci enseignants yi ak ñeneen ci ngeen gis six cent mille familles yi gën a néew doole ñu jox leen ay ndimbal direct yónnee leen ko ci yaatal loolu fexe ba mu gën a yaatu ci lañu nekk ci lañuy liggéey guddi ak bëccëg dem Russie wax ak ñi nga xam ni ñoo indi guerre bi wax leen ni stock ya fa nekk nañu fexe ba afrig am ci lu mu dunde nañu fexe ba engrais bi nga xam ni bu ko baykat yi amul ci nawet bi tàbbi jafe-jafe yi dana gën a tar ñu fexe ba libéré ko pour mu mën a egsi ku nekk ci loolu tal nga leneen lu dul tëbi teen jàmm ci lañu ñu mën a liggéeyee ak liggéey bu mu mënti doon jàmm ci la ñu mën a jaamoo yàlla ak xeetu jàmm yàlla bu mu mën a doon jàmm jooju nag bokkul ci sàmm ko lu yoon dogal te neexu la nga ne du fi amee sartu réew mi ak yoonu réew mi kenn rekk la jox sañ-sañ mu wax kuy bokk ci élection ak ku ci dul bokk muy conseil constitutionnel joxu le président de la république joxu le ministre de l'intérieur conseil constitutionnel rek mo am sañ-sañ dogal kuy bok ak kudul bok biñu invalider conseil constitutionnel dafa ñew jël dogal donc conseil constitutionnel mo am sañ-sañ bi bu xisee wax wax ja day fale lay yem amul dara lu ko féete kaw kon lu mu dogal ñi bëgg jàmm bëgg li ñu war a tal te mooy fexe ba jafe-jafe yi jóge ci àddina bi bañ a faagaagal réew mi muy ñun muy opposition li ñu war a def mooy sàmmoonte ak dogalu conseil constitutionnel moo xam neex nañu moo xam neexul li ñu bëgg a gëmloo nii itam dafa am ñu ñu bëgg a génne ci élection yi loolu amul puisque coalition yi am na liste nationale dadul titulaire yi mais yaakaar naa ni ni ñu respecté seeni titulaire noonu la ñu joxe cër seeni suppléant bu leen askan bi bëggee votel député yi mën naa bàyyikoo ci seen liste boobu donc loolu jarul yëkkati fitna jarul dajaloo pour Indifit. puisque bu fekkente ne nit possibilité lu ko neexul dogal mu dajale dooley boppam faje ko société amatul état de droit amatul état amatul bu ñu demee ba lion dogal mu teg ko fee wut doole ak pexey boppam yu mu faje li mu bëgg état amatul société amatul liggéey amatul ku man sa morom duma mooy tax responsabilité état responsabilité président de la république bi ci jiitu mooy kaaraange mooy sàmm nit ak à am-am ak c'est ça la responsabilité première de l'État et du président de la République donc jàmm jooju ñépp ci war opposition bi pouvoir bi sëriñ population bi gën takku état bi gën a góorlu ci pexe yi muy wut pour yokk am amu waa réew mi ak wàññi njëg yi loolu ci la ñépp war a mobiliser wu te ci lañu woo ñépp li ci des nag mooy élection suñu sartu réew moo ko tëral tëral ay yoon yu mu war a jaar bu egsee ku nekk am nga sañ-sañu tànn donc loolu daal la décision du Conseil constitutionnel met fin et de façon définitive au débat sur les listes admises à participer aux élections législatives du 31 juillet 2022. Personne n'a le droit de prolonger ce débat sous d'autres formes. Les universitaires, les historiens, les intellectuels ont le loisir de poursuivre le débat, de commenter les décisions et les arrêts du Conseil constitutionnel. Ça, c'est de l'histoire, c'est de l'enseignement. Mais nous, acteurs politiques, une fois que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, nous sommes tenus de nous y soumettre. À défaut de quoi, nous rompons l'équilibre de l'état de droit et nous faisons s'effondrer l'état dans notre pays. Merci. Madame le Président. maintenant vous pouvez commencer les questions. Parce que, merci beaucoup, Président voilà, donc vous pouvez commencer à poser vos questions. Voilà. Bon. Bah alors, alors, ce qu'on n'avait certainement pas dit, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est que nous avons aussi discuté de la structuration de notre directoire. Nous avons voilà, réfléchi sur comment nous allons y aller de manière euh, méthodique, rationnelle. Euh, et euh, nous avons été tous d'accord et nous avons adopté justement la structuration de ce directoire-là. Évidemment, on ne vous donnera pas la teneur, puisque nous savons nous Mais cela, nous le portons aussi à votre, à votre attention. Bien. Alors, qui se jette à l'eau le premier C'est pas de l'eau chaude, hein? Oui, alors. Donc, donnez votre nom et l'organe que vous représentez, s'il vous plaît. Pardon D'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, Ousmane, vous arrangerez, monsieur le Conseil, pour que la déclaration-là, ce sera fait ce soir. Montag.